waaw dafa wax ne mboolem ayatu yu nekk ci alquran moo xam jot nga ci dara ki ayatu naa wala yu demee noonu ñoo yemoo a ji nga wax alif gi nga xam ne moo bi ci am sa gi moom ci mboolem ayatu yëpp dañoo sax soo ko dee bind doo koy def alif ku dog te dijj bul ko xongal bul ko sewal ba bi ji yàgg nag bi nga ne ayaa alif googu bi ji yàgg nag moom am na ci ñaari baat ci alquran yëpp yoo xam ne ñu ngi nekk sooratu Yunus kenn ki mooy wa isa tutle alayhimu ayatuna bayinatin qaala allazina laa yarjuuna ayaatu boobu xam ne alif ñaar la bi ci yàgg dafa sax mooy soo ko dee bind danga koy def alif ku dog réyal ko bul ko xongal bul ko sewal bi ci des nag mooy ba ne fii ayatina qulillahu asrahu makra fii ayatina jooje kooku nag mooy la ca ba ca topp hmm. jàppal ne fi ayaatu jooju soo ko dee bind ci alquran alif nga bi ji yaaga ayat nga ne aya koy alif ku dog te di jël ko mu toll araf des bul ko xongal ko sewal daa am bu ko njëkk nag bu ko njëkk nag ak ba nga ci cat la muy hanaya tina la xaafiloona yooyu mom moom mau baca ci alquran ñoom ñëpp ñoom da nga ne a alif bu kirek. rek mooy dijjite sax waaye yaaja moom day nekk alifub bu sew mbaa nga xongal ko ndax saxaaba yi bindaale wuñ ko waaye yaar yi moom takkal ne moom alif gu ji yaaga da nga koy dijjal te def ko gu dog muy li ma la wax ci wa iza tutliya alayhim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna ak fi ayatina qulillahu asrahu makra yooyu yaar dong daal ci alquran ñoo ci am yoo xam ne alifu ñaareel ga day far ànd gu njëkk ga nga bind leen bind mu dijj te dog te sax bul ko xongal bul ko sewal wa in ataaka ndem dikal na la xabla taayin ci njëkk taa alifaani yaari alif kas saalihaati mel ne baatub as saalihaat fa huma kon ñoom ñaar yan hadifaani dinañu asafu dinañu dagg dem ba tey beneen takk-takk ngoog boo xam ne yow mën naa jàpp mooy daa wax ne su fekkee ne baat ba alif ak taaju tàlli moo ca mujj xam nga weesu woon na ko waaye ba weesu woon booba benn alif rek ca nekkoon mu àtte woon na ko ba mu jeex wax la la ca xew bi nag moom baat bi daa mel noonu ba noppi yaari alif nekk ca mel ne assaalihaat wala taibaat wala assaafaat wala annafaasaat ki yooyu yëpp xamal ne nee na alif gi nga xam ne mooy njëkk taaj waxoon nañ ko waxoon nañ la ko ne la moom saxaaba yi bindaale ko waaye kon jàppal ne gu njëkk bu njëkk ga mooy ga jiitu itam noonu la mel saxaaba yi bindaale wu ko woon te yow boo ko dee bind da koy xongal mbaa nga sewal ko te lu ci mën nekk nga aj ko moom la misaale nag baat yooyu moom it xam nga dafa am ay benn benn yoo xam ne dañoo wàcc yoon wa mooy dugg nañ ci ni nga waxee waaye danga leen war a seetee hmm. moom la tàmbalee ci nag was tas na nga seetee awalan aji jëkk bi yaabi ci yaabi yaa bi saat foo koy bindee ci su fa xamal ne yaa alif bu njëkk yi moom dafa sax yaa yaa alif googu ni ñu ko bindee bii mooy bindee da nga koy di te def ko alif ko dog bu ko sànni ci kaw di ko sewal mbaa nga ko xongal alif gu mujj gi nag moom nee nga du ci jóg moom ndooleen la da koy def noonu mu xong mbaa war mbaa tuuti ba noppi nga ko egg ci kaw aayaati ak aayaati ci yëpp xam nga weesu na ci yaara fay léegi ci sooratu Yunus soo weesoo yaar yoon ayat yi ñëwaat ci alxuraan alif gu njëkk gi nga xam ne moo bijj aaji moom saxoon na ci mbindum saxaaba ya yal na yàlla gërëm moom dañ koy di jël te sës mu sës ci mbind kenn du ko àcc ci kaw kenn du ko tuutal kenn du ko xongal alif nga ci mujj nag moom ndoleen la wuti naa wuti naa yi nga weesoon léegi ci Yunus moom mboolem ayat yi ci des jàpp ne alif ñaareel nga moom buñ asoxla woon amatoon ci mbindum jotaan raasiyaat ak raasiyaat moom jàpp ci loolu alif bu njëkk yi da koy saxal maanaam xamal ni amoon na ci mbindum saaba ya alif bu ñaareel ba nag moo ci amutoon xam ne moom ngay ci kaw ba noppi xongal ko mbaa nga sewal ko baasi xaat ci ci nekk ci sóorutu xaaf raasiyaat moom ci sóorutu saba la nekk baasi xaat ci nga wax ci sóorutu xaaf la nekk hmm. alif bu njëkk yi moom dafa sax amoon na ci mbindum saaba ya alif bu mujj gi rek ci amutoon ko defee nag nga aj ko ci kaw ba noppi xongal ko mbaa nga tuutal ko risaalatun ak risaalatun min bax di ballaxta ju nekk ci gannaaw ballaxta ataa dikk na nee na fama ballaxta risaalaati yi lay wax ballaxta risaalaati ci suratul xoot mhm. mooy mooy suratul maida mhm. dafa suratul xoot ba tey risaalaati boobu nee na jàppal alif nga jot moom dafa sax boo koy bind wattu ko tuutal mbaa ko xongal ba dara mbaa nga di ko jéem aj déedéet lu mu jig nag moom mooy risalaa ki bi ci laaj moom koy gal koy bind ko yesu bind dang koy gal ci laam gi xam na moom la amu tol ci la la na ni awam aji sabata saxna bi ko ci kep yi nga wessu xam nga dara wax na li ya bi saat ba fi nga daano ci fama ta risalati ani ko mo sax dolle manam amee na ci mbindum saaba ya alif ñaar la waxoon ne la moo nekk buñ asafoon moo ci amutoon mu ne la am nañu ne ya nga weesoo njëkk yi ya weesoo mel ni saalihaat ak taayibaat ak nafaasaat saafaat yëpp am nañu ne alif njëkk dafa sax alif njëkk daa yem ak gi ci yaabisaat ak aayaat ak raasiyaat waaye loolu bu ko jàpp jàppal li a wax rek. waaye jàppal li njëkk a wax rek jàppal a wax mooy bu lu mel ni saalihaat mbaa nafaasaat mbaa saafaat yaa yëpp ndooleen lañ ñaari alif xibit sax ñu won ci ciosan day jox rek mo yor li nga jàngul nag mooy alif yi nga xam ne mën nga koo takk ci alquran benn mu sax mbaa mu nekk ndoleen ñu bind ko ci gannaaw bi mooy li nga jàngul fi mu toll jéem la si jox takk yoo xam ne mën nga ko xool booy jàng alquran mais boo yoroon kaamil bi tey di jàng di xool takk-takk yu mu la wax noonu lay demee du jàdd benn yoon incha allah waaye la alif alifé daa bari nag da koy def nag ay bunt ma waxe woon ci gannaaw day indi alif alif goo xam ne daa topp am sa xam nga araf abajada am sa a moo ci njëkk la njëkk wax alif yi nga xam ñoo topp am sa ci alquran te te nga war ko acc ko xongal ko mbaa nga tuutal ko mbaa bu fekkee ajoo ko it moom day sew moom la bëgg wax moo tax mën naa faslu li ab dog la fii dikri alif ci tudd alif ga al mahzufi ka di ko asaf baxdal xamsa ci gannaaw xamsa bay bind kaamil kon nga xool bunt bi bu baax faxdif na asaf buraaw buraaw buraaw boo ko dee bind xamal ne alif gi bi ji gi topp am gi ndolen la amatoon ci mbindum saaba yi da koy tuutal mbaa nga ko suma jaa aana topp jaa aana jaa aana xaala yàlla te bay niyo bay naka bon dal mashriqay alif googu xamal ne topp na am sa te amatoon ci mbindum saaba ya koy xongal mbaa nga sewal ko qur'anan ak qur'anan wula yusufin ci njëlbeenu soorut yusuf wa soxrufin ak soxruf maanaam inna ansalnaahu qur'anan harabiyan laxallakum taaqiloon nax nu naxus su mooy jenn ji kooku ba njëlbeenu yusuf ak inna jaxalnaahu qur'anan arabiyan laxallakum taaqiloona jaja soorut soxruf yaari qur'anan yooyu xam ne alif gi topp am sa gi alifu alif gu soxut la alif gu ñu asaf la maanaam amatoon ci mbindum saaba yi yaay xuraanan yooyu seen alif da nga koy sewal mbaa nga xongal ko soo weesoo yaar nag moom yi amaat ci alxuraan yëpp alif gu dafa sax alif gu da nga koy dijjal te bañ koo aj bañ koo xongal waaye yaar yooyu nga wañ cee jëm kazaalika nii a amantum a amantum yetti am saa fi nekkoon ndax ë ci la ko ba mu doon ë mën soppi alif ñaareel gi moom dijj ka mu daal doon a mën mu dara andi am sa am sa istifhaam gi am laajte muy ah ah mantum ndax gëm ngeen ah alihatunaa itam ndax sunu yàlla yi moom itam alihatu ci la bàyyi ndax dafa bàyyi ko woon ci ilaahun boo ko muy alihatun muy afxilatun bi ñu daal wala bëti am googu mas mas ko ne daal mu daal bi jigee muy nga andi am laajte ndax sunu yàlla yi ah alihatunaa koku ñu ngi ko xol fi ñu ko ko bindé ci alquran ali go nga xamni ci ciosan am solo won xamni la won ndax mëntum mëna ci la bayiko muy afala ñu soppi ko amana jappal ñu ngi koy bindé alif gogu dang koy tutal xamni amutoon ci mbindum sahaba ya ngay jëk bind tikkin tek ci alif go xamni nga ngay tek tomb ci kaw tek ko ci kaw tomb bi moy won nañ koy tashil tashil moy boko jang ah gu wër wër dang koy wayafal mu tafsil amantum amantum moom lañ koy waxee ahalihatuna ahalihatuna moom lañ koy waxee jàppal ne nag alif yooyu moom boo ñii dañ ko fay bindee boole bind gaa ñu tey alif yooyu amuñu woon ci mënum saaba ñetti baar la ci alxuraan ndax amantum day ñaar ak ahalihatuna muy ñett ñetti baar yooyu ñoo ko àtte walam yakun bi la yaar xunaa firi nee na lii dañ ko tudd fi waaye ci dëgg-dëgg boo ko dee seet duñu alif ci cosaan am sa lañu woon xam nga fi ay am sa fi nekkoon naka jekk am sa gi lañ sopp alif bi bicc ko rek waaye ci cosaan am sa la woon moo tax saraa bi naa li annahuma min baabi xadfil hamazaati laa min baabi xadfil alifaati yu bokk ci buntub asaf am sa waaye bokkul ci buntub asaf alif faslu li ab dog la fi dikri alif bi ci tudd alif ga al mahdooti ga dikuñ asaf baax na bàyyi ci gannaaw baax nga ñëw nag ci baax bàyyi nga alif topp na ca te boo koy bind ci alxuraan alif nga nga war koo xongal mbaa nga sewal ko loolu mu in sif asafal xaba isa xaba isa boo koy bind ci alxuraan alif ngoogu mu topp baa xamal ne soxutoon danga koy xongal mbaa nga tuutal ko maxal albaab bi ànd ak alif gi ci albaab albaab bi foo koy bindee ci alxuraan alif boobu noonu lañ koy bindee wa mutlaqal addibeeri ak lu ñu jooyal addibeer addabaar boo gis ci alquran nag xamal ne alif googu softoon danga koy aj ci kaw rek ba noppi xongal ko mbaa nga tuutal ko wal asbaab yi asbaab foo gisee ci alquran rek al asbaab asbaab samawaati ñoo yem rek noonu koy bindee alif googu dafa asafoon amutoon idbaara idbaara sujoodi nee na moo xam day idbaar ci majjit mbaa ci toor ñoo ci yemoo fu ci mën doon rek alifam googu topp baa bi woon baaxid alif gi ci baaxid moom ndolli la ni koy bindee rek da nga koy xongal mbaa nga ko baax yoon alif gi ci baax yoon moom it ci cosaan xuq baaxaa alif gi bijji baa bi muy xuq ci cosaan suma ji tabeexu topp iji tabeexu nuuni xaa suma ji tabeexu nuuni xaa topp iji tabeexu ji ci suuratul xalami nuunam nga mooy nuun mooy soob nuun wala xalami ak ba ca ijtaweefu dafa ñëw ñaari yoon ci sóoratu Nuuni muy sóoratu Qalam ak sóoratu Taaha waaye bu mu ci mën doon mu xamal ne gannaaw baaba alif da cee topp waaye alif ga saxutoon ci cosaan ko ci kaw rek te di jël nga xongal mbaa nga tuutal ko tuutal ko xadd baana alif gi topp baa bi ci xadd baana xadd baana asifan moom it xamal ne saxutoon ci cosaan tuma baalixun alif gi nga xam ne moo topp ci gannaaw baa bi ci baalixun ba tey noonu la kalifa ata mu mu dikki ci alxuraan rek mu xamal ne noonu la ba kon wa baashiruhunna ak baashiruhunna laa tollu ci alif yi nga xam ne ci dama topp baa te amu woon ci mbindum saxaaba ya yal na yàlla gërëm nga xam ne boo ko dee xongal mbaa nga tuutal ko baashiroo xam ne ci la bokk tubaashiroo tubaashiroo bi taayin ci wala tubaashiruhunna wa antum xaakifuuna fil masaajid ba te xamal ni alif googu ba tey soxatoon maanaam na nga koy aj te tuutal ko mbaa boog nga xongal ko xibaadati ak xibaadati fii mariam ci suratu mariam xibaadati xal taalamu lahu samiya xamal ni xibaadati bu alifam alif bi muy topp baax waaye moom itam amatoon ci mbindum ñu njëkk ña ibaadi ak ibaadi fil fajri suratul fajri ibaadi wadxuli jannati jooja lay wax suratul fajri alif ngoo xam ne saxutoon nga koy at ba noppi xongal ko mbaa nga sewal ko ma xibaadana ànd ak xibaadana bi saajin sóoratu saat sóoratu saat daañu ko wax sóoratu daawooda xibaadana ju ci nekk foofu nga seetlu ci alquran ne bo sherlo yett yi mu wax wastabir li ibadati ci mariam ak ibadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati shur al-fajr ak ibadana ki wadgur ibadana ci suratu sad yett yi boo ko yi bokk te ñom rek ci alif dafa sax sahaba yi bindale won nako soko di bind dang koy def alif ko dog te jël ko boole ci waaye yett yi moom alif sahaba yi bindale ko won dang koy xongal te aj ko mbaa boog nga sewal ko raba ibun ak raba ibu ku laati fii xujjarikum ci alquran xam ne alifam googu mu ngi topp baa te itam danga koy aj nga xongal ko mbaa nga tuutal ko xusbaanan alif gi ci xusbaanan ba tey mi ngi topp te ci xeet yooyu la bokk amutoon ci mbindum cosaan ma danga koy aj te xongal ko mbaa nga tuutal ko amba'u amba'u ma yi nga xam ne moo nekk ci suratul an'am ak shura yaar lay wax alif ga topp ba xamal ne mi ngi bokk ci alif yi nga xam ne amatoon ci mën moom cosaan cosaan ma lahum ñeel leen ñoom way xam ña ci mbindum alquran dafa andi foofu lahum rek wane ne lii muy wax ñoom ñi nga xam ne ñooy jàngale mbindum alquran ñoo ko wax rubaaxa bu baax am na ci sorot nisa am na ci fatir ñu ci mën doon rek xam ne alif gi topp baa bi amutoon ci mbindum cosaan ma baarik baarik ak nu mën dikkee ci alxuraan niki mubaarakan ak naa yooyu nu mën dikkee ci alxuraan foo fekk lu ko nuru rek xam ne alif gi topp baa amutoon ci mbindum cosaan ma baatilan baatilan ak nu mën a ñëw ci rek ñooy moo dik innal baatila kaana saxooqa nag wa baatilun maa kaanu ya'maluuna naag mu mu ne ci alxuraan nag moom alif gi topp baa moom cosaan ma danga koy xongal mbaa nga tuutal ko te aj ko ruhbaanahum ruhbaana ji ànd ak hum nag lay wax kooku xam ne alif gi topp baa bi amutoon ci cosaan ma danga koy xongal mbaa nga sewal ko te aj ko bul fàtte ne weesu woon nga ci gannaaw war ruhbaani moo ñu waale woon ko ci ya nga xam ne baat ba alif da caa mujj leen woon ba mu des benn benn yooyu mu waxan ar ruhbaan na ci la bokk mel na inna kathiran min al ahbaari war ruhbaani jooju alifam moom dafa sax maanaam saxaaba yi binaale woon na ko wañ ko jaawale ko ruhbaan ji mu wax xam da ànd ak moom kooku moom war ruhbaani la xam ne mujj ga dafa nekk noonu dañ mas ko yat ci suuf alif jitu ko muy war ruhbani koku mom la sahaba yi bindal alifam eh, kabairan ak kabairan illa nisa ngara bu nek ci nisa ana ne kabairan ismi xam ismi ci top na ci yar bi rek ci alquran xam alif ga top baba amutoon ci mbindum ci salma waye bi pem bi am surat nisa yi nak mo inta tani wo kabaira ma tun hawna bobu dafa sax ko gën nga bañ jom kabaira ma tunhawna anhu alif ga doo ko aj tuutal day nekk ci mbind mi yemoog ya nga def ko alif alif gu dog gu lay doon baasitu ak baasitu fii raa ci raa ñaari baasitu yoo xam ne soo koy bind nga xam ne alif gi topp baat bi amutoon ci mbindum cosaan ma danga koy xongal baa nga tuutal ko te it doo ko doo koy aj mooy illaa ka baasiti kaffay ilal maayi ci nekk ci rax di ak wakal buhum baasitun diraaxi bil wasiidi ci kaf fi yaar lay wax ñaari baasit yooyu ñu bokk teyee na xamal ne dafa alif ga dafa sax waaye yaari ñoom seen alif saxutoon wa ahibaaw ahibaaw uqtu fi xeñ toof na ko alif gi ci ahibaaw topp baa boobu ñu sàdd xale yooyu ci mënum ci tànn loolu mooy alif yi nga xam ne ñoo topp faslun li ak dog la fi alif du alif al mahdhuf fi badign asah bahna tay ci gannaaw ta xam nga dafa top a ba ta sa ja defu ko abaja da hawasa ji ngay ki dafa def a ba ta sa ha qa da ngay ko mun jidi xaral di ande ko ande lay la ñew ci ta matahun matahun foko fek ci alquran xamni alif gogu top ta ji saxatu ci ciosan dang koy xongal ba nga sewal ko waaye boo ko def ajëfak dok bu ko di jël istajir jooju ngay gis ak foo ko gis rek xamal ni alif googu topata ji amutoon ci cosaan yataamee yataamee nu mën a ñëwee ci alquran rek xamal ni alif ki topata ji non la mel saxutoon ci cosaan buftan foo ko di fek ci alquran rek alif googu toppatoo gi saxutoon cosaan nga koy xongal te aj ko mbaa nga sewal ko xitaabu foo miskun xamal ne alif googu toppatoo gi noonu la mel imtaazo ni ki wamtaazol yawma ayyuhal mujrimoona alif googu toppatoo gi xamal ne amutoon ci cosaan la wa fi lustizaan ak fi fi xaali istizaan istizaan moom alif gi ci seen ni moom waxuñu rek waaye bu defee fi xal muy استاذنك انما يستاذنك اك فاذا استاذنك قال مشاعر في حال رك لك استاذنك انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله اك فاذا استاذنك لبعض شانهم يبقى ملنا ان هناك في حال يب ام يون تي جوتان دا لين دي خونغال باغ توتالين تاج لين سي فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا alif gi top daa ji ndol ana amutoon ci mbinum saaba ya dang koy xongal ba nga tutal ko te aj ko kitaaban kitaaban mu ñu ci alquran rek bam dess yam lay bëgg wax alif gi top taaji dang koy def alif gu aj te xongal ko ba nga tutal ko ba mu dess nak yent yo xamne nga bañ ko fàtte tak ko bu baax ñom bo leen bind seen alif dafa saxoon ci mbindum saaba ya dang koy def alif gu dopp te di jël ko wala wax na ma nam namlan ndare bi nek ci suuratu namli loolu dafa jublu tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin kitab joju dang koy bind alif ku dok waye doo aj xongal doko sewal alif ku dok alif ku dok la te di te di dijj kenn duko ko aj kenn duko ko xongal kenn duko ko wa kafan ak ji ci kafi min kitaabi rabbika watlu oh ya ilayka min kitaabi rabbika laa yubaddila li kalimaati boo koy bind ca boo bind kaamil mbaa nga di ko toppal nga seetlu ne alif googu alif gu dog la te dafa dijj maanaam amoon na ci mënum cosaan ma kenn du ko xongal kenn du ko tuul kenn du ko waaj suma hijiran topp bi nekk suratul hijri kitaabun ma'lumun ma tasbiqu min ummatin jooju wax xamal gu alif gu dog def bu ko du ko xongal du ko tudal rahadan ak bu nek suratul rahadi wa li kulli ajalin kitabun yamhu llahu ma yasha wa yuthabbit jappal ni kitabun joju ba batay alif ngobu dafa sax yanti mo bul ci joom way bind ka ñu ko top la yu bokku yoy nak mom fokk fek alif go amutul ci ciosan la dañ ko dañ koy xongal aj ko ci ko bañu tutal ko faslum li ak dogla fi zikri alif alif almasuf bi afa baxda zaay ci gannaaw taa ñu tombañ tombañ ci alquran yi nga xam ne wal xasu asaf ga fi ataaba nekk na ci ataaba ataaba moo xam wa ataabahum la ak fa ataabakum xamman bi xam ñooy ma jàppal ne alif gi topp tombañ boobu soxutoon ci cosaan la ndax awtaan ànd awtaan awtaan niki innama taabudoona min doon laay awtaanan alif boobu dijj tombañ bi xamal ne amutoon ci cosaan la ko dee rek nga xongal ko te aj ko nga tuutal ko ataatam ataatam wari iyam ci suratu Maryam alif googu topp tombañ bi xamal ne moom it noonu la mel amatoon ci cosaan am taalin ak am taalin di nisfin ci am nisif saalin di aji ñaareel am nisifu ñaareel mooy téereb suuf bi tàmbalee suratu Maryam loolu booy bind kaamil mbaa ñu la koy ni nga wër am saalin ngay fekk ci téereb suuf bi moom alif ga topp alif ga topp ñett tomb ña amutoon ci ñu cosaan ma manam dañ koy xongal aj ko ci kaw bañu tutal ko aj ko ci kaw mu dess na yi nek ci téere kaw wi téere kaw wi moom am faal ci nek yépp alif ga amoon na ci cosaan la amoon na ci mbindum ba ya boo ko bind dañ koy alif bu dok te di jël ko na mbind di jëgolé ci loolu nak mo tak tak bi téere kaw dal mom am faal bu ci nek xamal rek alif nga saxon na téere suuf nak mom am faal bu ci nek rek nit ki bi ngay jàng ci lawantal na xaatu xuraana xamal ne bu amsaal boobu nekk foofu solul foofu ak yeneen waaye bu weteer suuf rek mu xamal ne amutoon ci mbindum cosaan ma aataarahum ak aataarahum day wane ne aataarahum nga xam ne raagi danga ko maas maas ko yet xamal ne alif gi ko jiitu te topp tombañ bi amutoon ci mbindum saxaaba ya aateerihim ak aateerihim kooku da cee jublu asaar bi nga xam ne him da caa jokk waaye raaga dañ ko maas maas ko yet ci suuf moom itam xamal ne alifam soxatoon ci mbindum saxaaba ya di tax mu jokk ci hum ak him nag day bañ nga jaawale ko xala asaarihima xasasa jooju nga xam ne moo nekk ci suratul kahfi waaw kooku moom alifam dafa sax soo ko dee bind danga koy def alif ku dog te jël ko ndax saxaaba yi bindaale woon na ko misaaq yi jooju foo ko fekk ñu mu ci alxuraan rek moom ali gi topp tomb ñi amutoon ci mbirum cosaan ma suma asaaratin topp asaaratin xalaa wefaaxin ci dëppoog sëriñ si asaarat ñu fi min in kuntum saadixiina ci surat laxaaf lay wax jàppal ne moom itam ali gi topp tomb yooyu amutoon ci mbirum cosaan ma danga koy xongal aj ko ci kaw mbaa nga tuutal ko aj ko ci kaw fas loolu ab dog la fi dikril alifi ci tudd alif ga al mahdubi nga di asaf baxdal jiimi ci gannaaw arafu jiim anam alif yi nga xam ne bu ci kaamil bi rek danga koy xongal ma nga tuutal ko te aj ko ndax amutoon ci mbindum cosaan li bëgg a wax bul xaddi fi nekk ci asaf ga jaahiliyatun jaahiliya xaytu warada fu mu rote ci alquran baatub jaahiliya mu ne ci alquran ñeenti yoon waaye foo koy bind koy aj ca kaw te ko mbaa nga ko jaahid ak baatub jaahid jaahid nu mu ñëwee ci alquran rek xamal ne alif gi topp jiim gi amatoon ci mbindum cosaan ma danga koy xongal te aj ko mbaa nga tuutal ko bu fekkee ko wa jaadil ak jaadil jaadil nag koy aj te xongal ko mbaa nga ko jaahilul layli ak jaahilul layli faqa doom maanaam jaahilul layli sakkanam alif googu topp jiim gi moom itam ci mbindum cosaan ma danga koy xongal aj ko mbaa tuutal ko loolu mu ko booleeg layli layli ji nag ab sart la ci nekk inni jaahilun inni jaahilun fi lardi xalifatan alif ko dafa sax gi mu wax rek muy jaaxilu layn ab sart la ci waxal yu jaaza illal kafooru aliou ci topp jiim gi ci yu jaaza bi ci ko ba tey noonu la mel amutoon ci cosaan la sama yuxuri jaakum topp yuxuri jaakum yuxuri jaakum xam ne alif boobu topp jiim gi amutoon ci cosaan la nga koy aj te xongal ko mbaa nga tuddal ko tijaaratun tijaaratun mën ñu ci alxuraan rek xamal ne ak bi topp jiw gi amutoon ci cosaan danga koy aj te xongal ko mbaa nga tuddal ko wala bu jaawas na ak baatu jaawas na yàlla la moon a ngeen xam wa jaawas na bi bani israil al bahra lay wax alif googu topp jiw gi ba tey noonu amutoon ci cosaan la danga koy aj te xongal ko mbaa nga tuddal ko waxat ataa dikk na xawlaani ñaari wax xan ataa im jële ci ataa wa xakamin ak jële ci xakam fi alifil marjaani ci alifuk marjaan alif gi ci marjaan ndax amutoon ci cosaan da doo ko di bind da nga koy aj te xongal ko mbaa nga tuutal ko am amoon na ci cosaan da nga koy di jël te def ko alif ku dog am na ñaar wax waaye jàppal wax ji gën a wóor mooy dafa sax mooy ni ñu ko bindee téere bi nga xool rek noonu ñu koy bindee da nga da nga koy da nga koy def alifuk dog da nga koy def alifuk dog ba noppi itam réewal ko ni nga réewale فصل لي اب دوغلا في ذكر الالف تل الوبا المهدوي كلكن اسفان بعد الحاي تي غناو حالونك بعد نيو تي القران الوغا توب حالونك تسوكو دي دند دنجكاي اج تي خونغالكو باغا توتالكو يلي دوغا والحدو اسفغا في حاشا نكنا تي حاشا حاشا بوكو دي دند الوغي توب حالونغي دنجكاي خونغال تاجكو mbaa boog nga sewal ko ni ki bu dee ci kaamil bu dee ci mooni tu xaajooni tu alif gi topp xaalaw ko gi noonu la mel amutoon ci cosaan wa fi xarafay ak ci ñaari baari axaatat axaatat at ji ab takk amul at ji rek alif gu saxal niki axaata waaye bu doone axaatat ni ki axaatat bi xati'atuhu xam ne alim ki topp xaalam ci cosaan la dañ koy xongal te aj ko mbaa nga sewal ko bopp bu fekkee xongaloo ko te aj ko boole ci wa maxaariba maxaariba ci suur saba yëf yi dana dikk maxaariba wa alim ki topp xaalam googu ba tey ci cosaan asxaaba asxaaba foo ko fekk ci alxuraan rek xamal ne alif bi topp alam bi sax doon ci cosaan da nga koy aj ci kaw xongal ko mbaa nga tutal ko ndax isxaq am na alifu isxaq gi mu am sala ci njëlbeen moom alif bi topp alam bi lay wax alif bi ci alam ci isxaq xamal ne foo ko gisee ci alxuraan rek amatul ci cosaan